Salam aleykoum wa rahmatullah Mboki, Sénégal euh, man Mal Abou euh, président fédération nationale des acteurs de la filière ovine di a aussi élevage euh, intensif plus précisément élevage ladoum. donc vais intervenir par rapport à une vidéo qui circuler si net bi bi nga xam Ben benn kilifa Tahirou bi nga il a été candidat

soko ko 1 million juru tabaski 11h der nga gis ko ci xaj il n'existe plus lolou kese la mm-hmm. mais nak dañu ñëw tomber ci ben régime libéral bo xamné daf ñu gëm ne puukaree xar bu ngand puukaree xar bu cher gaay di ki légui nak wa àll bi ñi nga xam ne ñoo nekkoon di jay xar yi à des prix normaux mm-hmm. ñom ñu né ah bon comme 2 tv créé na manam ben émission xar mm-hmm. xar bi nga xamné mo gëna laccax li lay jajal et tout ñom tam ñu ñëw tamit andi seen prix léegi nag affaire na wacc ba Dakar et c'est comme ça que c'est parti te lolou ay idéologie yu bonne mhm. motax moko def. Euh, dama né nak dama dama intervenir parce que euh, exemple bu mu jël euh té vraiment moom suñuy jàppalewul waruñu waruñu yakal pour quelqu'un qui aspire à diriger ce pays là euh, su togué lu toll suñu élevage mu euh ay xar yu nan ay croisement wala yu jar ay millions c'est des foutaises lolu ñaka xam la parce que ñun lu ñuy def ni du ay foutaises lui c'est de l'élevage sérieux c'est de l'élevage intensif euh, c'est de l'élevage professionnel et c'est c'est une entreprise hein, qui emploie beaucoup de jeunes hein, qui enrichit beaucoup de jeunes hein, qui fait bouger l'économie et qui est en, phase d'assurer l'autosuffisance en mouton au, au Sénégal euh, Moi su suis na expert en tout élevage nous les acteurs nga laaj ñu ñu wax la bu boobaa mun nga dem def sa intervention mais doo ñëw rek wax dara li nga xam ni mun na sax yàqal éleveurs yi ah parce que tey jii ñun élevage laadum bi tey jii su jaree yenn prix bi ah su d'ailleurs du laadum yëpp ay jar yenn prix yi suñu waxee rek ñu naan laadum million million tey jii am na ay laadum yi nga xam ni deux cent cinquante mille lay jar am na yu benn million ba fukki million ba lu ëpp loolu mais loo gis dafa am lu ko waral tey jii su euh, soo demee Brésil bi ñuy nga xam ne dañ ko ràññee si dëkk yi gën a mag si élevage Brésil tey jii seen am na fa euh, nag buy jar un million de dollars mais nag boobu di jar un million de dollars suñ doon peese yàppam kese du jar mille euros mille dollars Mais lui, il y a 1 million de dollars, c'est parce que Dieu, c'est parce que semence de génétique du Parce que nous avons que c'est bi nga xamni ko pour améliorer euh, cheptel local brésilien bi tay ji euh, xar bu gëna cher en Europe bi ñu récemment 420 euh, 000 euros en Angleterre mais ce mouton là euh, lutax mu jar 420 000 euros bobu tay ji soko bu doon yap bi nga do ci 300 euros mais le euh, potentiel génétique bi motax ñu ñu ñu jaay ko lolu la dum nak su valeur ah, euh, potentiel génétique bi la lu mu capable def la lan autosuffisance euh, en viande c'est parce que premièrement on n'a pas le nombre qu'il faut mais deuxièmement on n'a pas la qualité qu'il faut parce que race locale si on parle de bonne viande la bonne viande c'est la viande d'agneau race locale yi tey euh, mënuñu produire plus de 8 plus de 8 kg donc c'est des races qui ont besoin d'être améliorées et lan on leen wara améliorer la améliorer ils ont compris ils ont les moyens Ils ont di jënd ay di koy améliorer ont cheptel des ans pour ko francs T'es avec le croisement l'Adum Pulpul, ils sont en train de vendre des agneaux à de 6 mois à 200 000, à 150 000, à 250 000. et ils s'en sortent pas bien pas mal aujourd'hui dans la filière il y a une émission xar

amna ci si ji ay jeunes yi nga xamni ni jaay nañu xar ubbi kenkayri am amna jën yu jaay xar euh ci visa amna ay jën yu jeunes jaay xar yobu sen sen sen sen waajur mak amna ay jeunes yu jaay xar jënd terrain wala tabax sen kër aujourd'hui il y a des dizaines de milliers de jeunes qui vivent de cet élevage là aujourd'hui cet élevage là c'est beaucoup à à l'économie du du du pays il y a combien de de de de de minoteries au Sénégal tey ah bu njëkk ba ñaar rek moo fi nekkoon Grand Moulin NMA tey jii y en a combien loolu lu ko waral c'est parce qu'il y a beaucoup de bergeries aujourd'hui qui consomment beaucoup de des centaines de milliers de tonnes par mois aujourd'hui ces ces minoteries là emploient combien de milliers de de de de d'employés aujourd'hui avec cet élevage là ah, beaucoup de de de petites fabriques familiales sont se sont sont créées Ni ay ay les la fabriquer di koy jaay ñii ay collier la def di koy jaay ay jatan la def di koy jaay dañuy def ay formulation ay aliments di koy Hein? et tous ces gens-là hein, c'est l'élevage là mo len may hein ñun ñep dañ dans le ladou yow nga eh, considérer comme ay foutaise tabaski tabaski un mouton ne se résume pas à si si si der ak ak ak ak ak ak ak ak non xar du du neef du ginnaaw kër ak ak der ak yàpp kese non non non ça va au-delà soo waxee loolu c'est parce que xamoo lan lan mooy tabaski tabaski tey jii doomu aadama lañu lañu waroon lañu waroon sacrifier donc su su suñu suñu suñu suñu borom suñu nee léegi nañu sacrifier xar suñu demee ba di sacrifier xar aussi suñu ko yàlla maye moyen dañu war a sacrifier xar bi nga xam ne ñoom suñ ko doon yar moom la ñu bëgg a yar donc tey jii ku am moyen sacrifier xaru un million wala deux millions da nga ko war a def du question pour il ku fi ne ñu parfum deux francs nga dem parfum deux mille francs kenn du la ko reproché ku fi ne euh, auto R5 ou wala R4 dem jënd sa sa sa ce V8 kenn du euh, pourquoi et vous et les gens qui achètent des moutons euh, à à certains prix vous dites pourquoi. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des, des pères de famille qui sont dans la banlieue, qui sont dans les périphéries et tout. ñooñu tey jii euh, dañuy jël seen dépense xaaj ko seen xar yi ñaar ñetti xar yi ñu yor seen biir kër tey su su tabaski jotee ces ces vieux là dañuy xëy jaayi benn xar 700000 wala 800000 wala 1 million si si si xaalis boobu la ñuy jëndee euh, la ñuy xottalee seen yére xar yi. si xaalis boobu la ñuy jëndaat xaru tabaski si xaalis boobu la ñuy jëndee soble ci la ñuy régler seen problème tabaski familial yépp aujourd'hui de problèmes se résolvent grâce à cet élevage la donc soo leen ñu jàppalewul bu leen ñu yàqal. 여러 개입니